413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te buñ ñu nee góor a tax. nu na leen mbokki internet yi safo di seetaan Sunugal 24 mbégte la ñuy am saa su nekk di teew fii ci le point de la rédaction muy jotaay ñu koy amal di ci waxtaanee lépp loo xam ne si nii actualité la di xew fii ci biir réew mi wala bitim réew. Eh, Moustapha maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la bàyyi rek nga daal di eh, nuyoo ñu soo a jàll ci waxtaan bi noo def. maa ngi fi Cheikh Mahfous maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñi nga xam ne dañuy ànd ak ñun ci sunu émission bi di le point de la rédaction di nuyu Libaas Mbaye mi jàpp ci caméra yi. mi ngi noonu Moustapha dañuy daal di euh, dem ba Guinée Conakry euh, Guinée Conakry foofu nag euh, benn coup d'état moo fa am démb ci dimanche ji donc colonel bi nga xamante ni moom mooy Mamadi Doumbouya moom moo daal di def benn coup d'état daal di fay jëlee président bi nga xamante ni moom moo fa nekkoon di Alpha Condé démb nag Guinée Conakry daal di am journée boo xam ne si ni journée bu tàng la bu ñu xëyee ak ay tir de feu yoo xam ne si ni xaw na xaw na durée donc ñi ci laam-laamee ba nga xamante noonee ci la ñuy ne eh, ñiy def coup d'état bi mi putsch si daal di nañuy eh, jàpp kii di Alpha Condé eh, mi yore woon na nguur gi Mamadi Doumbouya nag jamono ji moom moo moo fa nekk muy colonel donc jiite woon li nga xamante ni également mooy force yi nga xamante ni ñoom ñoo daal di euh, def boobile euh, coup d'état jamono ji nag daal dinañuy dissoudre lépp loo xam ne si ni institution la foofu ca réew ma waaye euh, kuréel yi nga xamante ni ñoo nekk ci ci ci biti bitim réew muy organisme internationaux yi ñoom tamit ñi ngi ci wax bu baax a baax waaye fii ci Sénégal tamit am na ñoo xam ne si ni ay politique lañ jël nañ ay kàddu tamit yëkkati ko jëmale ko ci situation boobu nga xamante ni moom moo nekk di am foofu ca Guinée Conakry donc Moustapha foofu la ñuy daal di foofu la koy daal di waxtaane muy situation en Guinée situation bu doy waar euh, boo xam ne si nii kenn rafetlu ko démb mu metti woon na trop ci Alpha Condé euh, ñi nga xamante ni moom mooy armee bi mujjee nañoo jël nguur gi euh, mais nekkul loo xam ne si nii guléet la foofu mais est-ce que loolu tey séenoon nañ ko muy ñëw. Mhm. foofu ci Guinée Conakry ak Alpha Condé. waaw xam nga situation la boo xam ne bett nañu bëri. Mhm. parce que démb bi ñu commencé dégg suba teel gi ñu noon am na ay coup de ñu ngi dégg yoo xamante ne daanuñu ko fa dégg. Mhm. ñu bëri yaakaaroon ne sax benn mbir la boo xam ne dafay dafay romb rek. Eh, gis nañ après nu mu mujjee. ba ci kanam tuuti rek lañ ci teg ay image commencé circuler ay image yu ñëpp di ñaawlu. Uh-huh. parce que Alpha Condé je pense que mënoon naa am sortie bu gën a honorable li mu am démb. Mhm. Euh, koo xamante ne jiite nga réew. mu nekk nag premier président guinéen boo xam ne dañ ko élu démocratiquement. Mhm. bu ñu fàtte bu loolu moom la njëkk a démocratiquement. parce que Sékou bi mu ñëwee ba génn àddina après Lassana Conté moo jël. te Lassana Conté balaa moo jël dafa def coup d'état ki nga xam ne moo nekkoon président transition bi. Mhm. donc bi mu jëlee boobu moom tamit aide de camp moo ko daal di daal di daal di coup koo faagagas ba mu jaaree fa dem après nag si la transition bi jàll ñu def élection kii di euh, Alpha Condé daal di jël nguur gi en 2010 mhm. mu jot ko ci anam yu doy waar tamit mhm. parce que Mahfouz mënoo comprendre ñu dem élection nga am 18 pour cent Cellou Dalein Diallo se retrouve avec 42 pour cent mhm. ñu tëj tënk mbir mi ñu dem cinq mois après xaw ma 6 mois ñu doog a def deuxième bi mu renverser mi ba moom il deuxième tour bi deuxième tour bi muy affaire bu doy waar lu kenn mës gis koo xamante nga dem jël nguur gi ñëpp xam ne y avait des lobbies y avait yoo xam ne ñoo nekkoon ci ginnaaw mm-hmm. pour ki nga xamante ne moo Alpha Condé jotul nguur gi mu indoon benn enthousiasme boo xamante ne ci peuple euh, guinéen bi ñëpp dañ ko gisoon mm-hmm. vu parcours de l'homme ñu yaakaar ñeen sax dañ ko doon wax Mandela guinéen bi mm-hmm. Mandela Guinée bi parce que tellement que dafa amoon benn espoir bu ci am ak ni ko falee ak ni ko tabee mm-hmm. mais au fil du temps ñu dem ba rendre compte ne gis na kat ki ñu doon yaakaar ne waaja la du waaji mm-hmm. parce que gis nañ après ni mu doxalee dem ba nag troisième mandat bi doon mandat de trop bi nga xamante ne moo ko yóbbee tey ji situation bi mu nekk nii mm-hmm. parce que Guinée mënoon nekk bokk ci dëkk yi nga xamante ne yàlla daf laa may xéewal yooyu xam ne bu dee boo jëlee bi rek tey ji moom moo nekk deuxième producteur producteur mondial gannaaw Australie. Mhm. mu ciy koom bu bëri or bi nekk Guinée for bi ne euh, fer bi nekk. Guinée jamaa sax jamaa bi nekk Guinée. Mhm. donc gis nga bokk na ci rare dëkk yi nga xamante ne Covid bi sëkkuweel seen économie. Mhm. bokk na ci rare dëkk yi ci àddina bi. Guinée Guinée maanaam ci wàllum richesse am nañ lépp. am nañ lépp ci wàllum richesse ñàkkuñu dara. mais loolu moo tax efféminé Guinée pourquoi mu am croissance bi dem ba pare te Guinée du développé wu. Mhm. loolu daf leen a yéexal mais loolu boo laajee économiste si dañ naan parce qu'il y a une mauvaise répartition des fruits de la croissance nañ koy séddale ak fa mu war a dugg du fa dugg. Mhm. loolu mooy yëm ñu bëri. nga xam ne kon dëkk la boo xamante ne dafa yàgg nekk victime mal gouvernance ni ñuy yore dëkk bi ni ñuy tabaxee. ni ñuy mhm. yooyu yëpp dafa yàgg nekk problème mu amaat fa beneen mbir boo xam ne dafa dellu koo tegwaat si kaw mi wàllum waaso. wàllum ethnie. pëli fii malenke yi fii wax fële susuy wax fële yeneen etni yeneen etni yeneen etni juddu ñëpp rek yaakaar ne ku nekk sa morom waroo jiite kële moo war a jiite donc yooyu tamit di ay euh, mhm. euh, pouvoir yi mais li gën a yéeme mooy app bi mu koy jëlee fi ñu ko defee coup d'état parce que dafa doon période wax ne dañoo wax lépp a dalandi woon biir Guinée xam nga bi bi affaire bi jàllee pare amoon ay manifestation mu am ay arrestation moom ay répression sax yu ci am yu yu yu doy waar mais loolu la bi mu amee dafa am ñoo xamante ne sax dañ leen jàppoon notamment ñu bokkoon ci parti Cellou Dalein Diallo bi mhm. bañ leen jàppee même Cellou sax euh, dañ ko waaw ñu mu mu euh, mu këram yónnee woon nañ fa ay forces de l'ordre ñu mhm. xam ne moom mënu woon dem mënu woon dikk donc loolu aussi Euh, war nañ ko nekk xam si ne lu ñuy gis nga période boobu lañ am na ñu doon dañ ko jàpp. jàpp koy daal di période boobu la nit ñi doon gën a xaare wala ñu gis li ñuy wax coup d'état bi. Mhm. loolu moo loolu moo loolu moo yéemoon nit ñi parce que période boobu su fa amoon nit ñi dinañ ne kat d'accorduñu mhm. wala lii moo tax mu am mais dañ ko defee ci période boo xam mën nañ jàpp ne accalmie dafa am maanaam ab dalandiku dafa am moo tax ñu bëri jàpp ne coup bi lu mu amee mbir mi ci biir la mhm. maanaam njiitu réew mi ak ñi nga xamante ne mooy mooy mooy force spéciale boobu nga xamante ne mhm. Doumbouya moom moo moom moo ko jiite mhm. loolu loolu loolu mooy li nga xamante ne il faut que ñu il faut il faut que ñu souligner ko parce que tey jii fi mu pêché tamit mooy boo defee troisième mandat dañu gis nga boo xoolee waxtaan ba mu koy def xam ne mbir mi dina jur coow jur na mhm. coow ba mu paree rek dafa ubbi buntu réconciliation daal di juboo euh, euh, fexe bag boo ñibbisi mhm. xam jéem jéem a jéem a desserrer mbir yi ba affaire oyof toll mhm. mais euh, Guinée le contraire la ñu gis dañu gis waaye dafa jàll gën a teengal affaire ba pare di menacer mhm. di menacer fu mu toll ba boo xoolee boo suivre tuuti da nga xam ne kii dafa jóg pour s'éterniser au pouvoir dafa bëgg dem toog ci toog toog ci nguur gi ba yàlla di ko moom comme ni ñu ko gisee woon ak yeneen président yoo xam ne ñoo ko jiite ci dëkk boobu maanaam deewee ci nguur gi am amul chance pour mu jeexal ko. Mhm, amul chance pour mu jeexal ko waaye ki nga xamante ni moom moo jiite euh, boobule coup d'état muy euh, Mamadi Doumbouya moom euh, nekkoon nekk colonel waaye tamit nekk li nga xamante ni moom mooy chef de forces. des forces mhm. donc moom moom moo ko jiite bu bu Guinée. Mhm. fan yi ñu gisoon nag digganteem ak Alpha xawoon na xawoon na am ay ñagas-ñagas bañ dañ ko arrêté woon sax donc démb wala bërki démb bi ay ay jegeñaaleem demoon doon ko jéem a doon ko jéem a libéré après sax ci la ñëw ci. ci ci bi mu bi ñu ko libéré ci la ñu daal di def li nga xamante ni moom moo di coup d'état bi mais tamit mm-hmm. euh, bëggoon naa ñu wax ci kooku noonu muy euh, Mamadi Doumbouya mm-hmm. donc moom aussi jamono ji c'est il est le il est l'homme l'homme fort mm-hmm. euh, de la Guinée Conakry donc loo loo ñuy mën a wax ci Doumbouya waaw moom mooy homme fort de la Guinée Conakry parce que fi mu boo xoolee ci parcours am Euh, li ko wutalee ak yeneen militaires yi nga xam ne dañuy dañuy ramper di ramper di ramper ba nekk géné ba nekk général wala moom daanaka jaarewul foofu. Mm-hmm. bi mu bi mu nekkee ci ci légionnaire nga xam ne euh, légionnaire étrangère. Mm-hmm. France ñoo leen di former benn formation bu bu am solo bu am dayo. nationalité yu bëri di ci bokk di ci participer mais boo ci bokkee daanaka da ngay mel ni ab doomu doomu France ngay doon pratiquement parce que ñoom ñoo la jox benn formation bi jo defal la ay réew nga dem fu nekk donc corps d'élite la boo xamante boo ci bokkee dafay wane ne am nga benn xarañteef bu am solo mu participer waa tamit beneen formation boo xam ne ay américain def nañ ko fii moom moom ak ki nga xam ne mooy Assimi Goïta daje mu participer moom ak Assimi Goïta mais Assimi Goïta moom gis nañ ne moo fëgg IBK moom moo ko d moom moo ko wàccee moo tax bi mu ko wàccee woon tamit euh, bu waa ji amoon xeltu toujours bët li koy fàtt du ko gis mm, parce jege da lay ko moom tamit moo ko indi moom moo ko jëlee fa mu nekk indi ko moom Alpha mm. parce que le gars c'est un malinqué Kunkan bi nga xamante ne foofu la Alpha Condé dëkk foofu la dëkk ñu bokk fief ñoom ñaar tamit mu xam ne peut-être bu ko woowee mu jege ko du doon ko xam dina ko def yenn yi mm-hmm. et bi ñuy def seen seen seen défilé bu 2 octobre 1900 non 2018 mm-hmm. bi ñu koy def mu jiital ko mu doon benn force spéciale mi ngi koy doog indi mu ne dafay xeex terrorisme xam nga boo xam ne ba waaye dafa am benn stature boo xam ne dafa imposante mm-hmm. njool ci kaw macha allah et am gabari ñu def benn défilé boo xam ne ñi ko ñi ko topp ñëpp ay kagul lañ takk mu doon benn force boo xam ne première fois Guinée di ko découvrir mhm. mu doon benn menace bu am doole ah, xam mhm. daf leen mu jiitu nekk ci kanam ñëpp di ko découvrir kii mooy kan kii mooy kan kii mooy kan moo ko mettre sur selle moo ko teg ci kaw génn eh, fësal kook nit ñi xamale ko nit ñi mhm. pour nit ñi loolu lépp pour wane ne am naa doole mais nag comme ni ñuy waxee lugukati jaan jaana koy rey doole googu mu yar di ko di ko renforcer ba waa ji di gën a am doole di gën a am confiance. Mm-hmm. loolu nag tey ji moom mu dem ba comprendre mbir mi gis ne am na benn position bi mais amoon na benn moment sax am na ñuy wax ci yenn analyse ñoom ne seen diggante neexul woon mm. loolu moo waroon mu defoon ko à l'écart ñenn ñi wax naan dañ ko dañ ko arrêté ci benn camp waaw parce que boobu bi ñu ko arrêté mm-hmm. ba pare ci la ñu di dal ci ci ci état ci lañ dal ci état bi waaw parce que boobu xamoon li ko li ko suy fekk mm-hmm. après parce que xamoon nguur ku yàgg ku yàgg liggéey ak ñoom xam nga nga toog di seetaan bu defee 3 4 daf lay daf lay hmm. wàccee. mais bu euh, woon na. commencé woon na soupçonné voilà voilà moom dafa hmm. bëgg dafa bëgg def coup d'état. Hmm. ba mu ngi noonu loolu moo tax bi mu revenir rek après mu mu mu gën a gën a gaaw waaji. daal daal daal ci kawam mais mu doon loo xam ne tamit dafa am daf ci am ay ndimbalu armée bi. parce que mënoo comprendre bi opération ni mu déroulé wee. bu amoon ñoo xam ne d'accord ci di nga gis ay jàmmaarloo am ci biir armée bi mm-hmm. souvent yooyu la daan demee da ngay fëgg dara mu am ñoo xamante ne dañoo ànd ak nguur gi ñuy riposter wala daal ak mais boo gisee ni ni ni coup bi réussir de façon pacifique ngay comprendre ne tamit amoon na aval benn une bonne partie mhm. une bonne partie de l'armée parce que ñu bëri ci ñoom xam na ko mhm. tax ñu ñu ñu ñu ànd ak moom ci opération boobu loolu loolu loolu lu jar a souligner mhm. a poser benn question ci force spéciale jege président bi ñoom ñooy dem ba xam nga da doon nit koo xamante di ngeen toll benn diggante soit da may rey wala ma rey la lay demee ñun ñaar mm-hmm. parce que soit xam naa loo xam ne ci gi def naa ay jéye yoo xam ne tey ji bu président bi wàccee dossier yooyu bu ñu ko tegaatee ci kaso bi nga jëm da am problème mm-hmm. mais nag yooyu yëpp yow di nga foo xam ne da xam ne kii su ma ko wàccewul daf may wàccee yooyu ngay gis ak yenn président yi nag boo demee ba ngeen toll fenn fi nii nga xam ne kii yaa de sale boulot yi da préférer sacrifier président bi que nga continuer que moom après mu sacrifier la mm-hmm, mm-hmm. loolu moo waral nga gis pratiquement même opération bi ngay gis Burkina Faso ni mu demee woon ak force spéciale ni mu ni ak ñi nga xamante ne ñoo def coup souvent léegi li ñuy gis seen seen profil euh, au lieu mu doon nekk comme benn genre Dadis Camara nga xamante ne amatul benn dayo bi wala amul benn kii këf nguur gi noonu gis nañu mujjee après mais c'est des gens yoo xam ne fi ñu leen di dañuy yàgg min arme mm-hmm. xam opération naka ngay bettee parce que ki nga xamante ne xam na sa biir kooku bu la bëggee bett dóora ci loolu moo waral démb opération bi da gis ni mu ko defee presque daf ko réussir cat nag après problème transition bi daal di posé wu ndax ñii dinañ toog ci nguur gi ndax ñu bëgg nguur lañu mais en ay question ñu ngi commencé judd waaw foofu laa bëggoon ñëw sax muy avenir wu euh, eh, ndax euh, armée bi jamono ji <clears throat> ñoom ñoo yore li nga xamante ni moom moo di euh, doxalin bi foofu ci réew mi ba daanaka dissoudre nañ institution mais tamit Doumbouya daal dinay convoqué ministres yi ak ñi nga si ñoom ñoo jiite yenn institution yi pour ñu ñëw ci benn benn réunion mais est-ce que jàpp nga ni tey transition dina am arme wala bi tey moom mooy continuer di yore yore réew mi foofu lañ leen di xaar foofu lañ leen di xaar mooy li war te foofu lañ leen di xaar euh, je pense que war na mën a toppandoo topp def tamit comme ni ATT ATT je pense que defoon na mm-hmm. yu ni mel fëkk nguur gi joxe ko dem élection gagné ko. xam nga yu ni mel yu ni mel boo amee comportement bu mel noonu après dina tax après euh, nit ki dina dina am benn benn benn taxawaay boo xam ne dañuy dañ la koy jox dañ lay respecté dañ lay mm-hmm. non parce que mm-hmm. tey jii boo gisee démb euh, euh, nit ñi ni doon dawee ci Guinée. ci mm-hmm. capitale bi di daw di yuuxu di jubilé. ñooñu tey jii dañuy yaakaar ne yow seen sauveur. seen sauveur boobu nag nga nekk héros waroo mën a daanu ba nekk at zéro. naka ngay daanoo ba nekkaat zéro mooy nga bëgg a téye nguur gi parce que fii dafa am loo xamante ni ñëpp dañ cee d'accord dañ cee maan dañoo jàpp ne militaire place du ci nguur mais ci caserne la mhm. comme place du ci nguur ci caserne nag boo ko bëggee téye toog ko nit ñi dafa am beneen bët bu lay xoolee maanaam loo fay gën di durer rek nit ñi dañuy demal demal demal lañ lay demal nga jox keneen mhm. soit nga nga nga génn dem jaar bi yoon bi ñuy jaar dem élection gagné baa nga joxe nguur gi ñeneen ñëw associé la nga liggéey ak ñoom mhm. mais su fekkee ne da bëgg a nguur gi comme niñ ko gisee ak militaire malien yi jël poste stratégique yu bëri nga jël ko téye mhm. problème am ba coup d'état amaat yooyu yëpp ñu koy yooyu yëpp dundi ko dund je pense que yooyu war nañ ko mën a éviter Guinée su fekkente ne ñoom ñi def coup d'état bi sont assez responsables jox ko ñu ko war a jox le moment venu mhm. euh, CEDEAO euh, am yenn ci ay euh, li Alpha Condé tamit ñu daal di delloo réew mi ci euh, loxo yoo xam ne si ni euh, maanaam militaires yi joxe li nga xamante si ni moom moo di moo di nguur gi réew mi mën a delluwaat euh, fa mu nekkoon naka nga gisee tey taxawaayu CEDEAO CEDEAO bi est-ce que tey taxawaay boobu la waroon am. taxawaay bi ñu am man gëwuma seen taxawaay bu baax. Mhm. parce que xam nga lu tax parce que mhm. pour man problème Afrique ak suñu Afrique Afrique de l'Ouest bi nii. Mhm. ñun suñu suñu feebar dëgg dëgg dëgg lan la. problème transition la ñu la ñu am loolu mooy suñu feebar. mais nañ jël ay résolution ferme. ñu ne par exemple ku def troisième mandat lii ak lii mooy dal sa kaw wala ku ku ku xëccu yu ni mel. mais ci ci constitution. dëgg la dëgg la loolu am na parce que ñoom dañuy dem sukkandiku ci constitution bi modifier ko mais comme Alpha Condé moom moo modifier sololaat ko boppam dem. Mhm. loolu lu si nit mën. wootee référendum boo xam ne daf lay dimbali nga nga nga voté ko demaat mhm. léegi loolu lu si nit mën mais su fekkente ne yéen seen association man dama yaakaar ne li li. te bi muy modifié constitution bi ñu xam ne waru ko. modifié waru waroon na dem. ñu ñu toog seetaan ko bu mu modifié ko. Mhm. dem euh, gagné après lii am troisième mandat ñu fëgg ko mu mu doog a départ je que loolu lépp waroon nañu ko mën a éviter. Mhm. troisième mandat mooy problème bi te ñoom boo xoolee ñoom ñi si biir ñu bëri bëri bëri dafay ñoo xam ne dañoo bëgg nguur wala nguur moo leen soxal doo doo. cest à amuñu ci benn ngor bi mhm. loolu moo waral nag tey jii problème yi di am troisième mandat bu ñu ba dindi ko ci Afrique parce que problème yi am yu bëri bëri loolu moo koy waral rarement gis coup d'état am euh, tey fekk ne du affaire ku def troisième mandat wala yoo xanaa ah, nga gis ko ci euh, Mali waa gestion wu dëkk bi mhm. d'accord ci dañ koy décrier parce que gis nañ ne dafa faible côté bi wala côté bële ñu daal di fëkk nguur gi mais ak lu ci mënta am condamne mi ngi condamné mi ngi mi ngi réprimé wala papa réprimé mi ngi déploré xam nga loolu lépp du mbir yoo xamante ne pour man du foofu lañ leen xaare dafa dafa dafa daal dëgër taxawaay bu dëgër seen mission fayiruñ seen mission euh, bu ñu gisee taxawaay yi ñuy am ci yenn problème yi am ci réew yi à chaque fois du nekk loo xam ne si nii daanaka askan bi wala africain yenn ci nga xam ne si nii ci ñoo bokk ci Afrique de l'Ouest dañuy jàpp ne euh, du ma ne dañoo fayir de mais seen doole ak seen taxawaay bu am solo ñu fii fu ñu leen doon xaare wala ñu ñu gën leen faa gisee benn laay benn lañ ci gisu bon mën nañ ci mën a cité boo xam ne gis nañ ñu def ko ñu xam ne mooy mooy mooy Gambie ak mbirum Yaya Jammeh bi mhm. foofu daal la nit ñi gisee CEDEAO mu déterminé wu dem dégager waa ji mhm. sur le terrain mais bu loolu weesoo li ci ëpp ëpp dañuy taxaw di seetaan rek seetaan kese seetaan bu bëri fi nekk après ñu génne ay communiqué naan reconnaître uñ ko wala nangam ak nangam ak je que war nañ mën am benn rôle boo xam ne mooy gën a nekk rôle bu préventif boo xam ne laataa ñi yegg foofu laataa ñi dem bay mbëkku ñu taxaw àtte mhm. mais tey ji Guinée li fa am ni nekkoon na ay signaux yoo xam ne yàgg na faa joxe mhm. ñu sentir ne naa noot sentir

doole gi mu waroon a am ak dayo gi mu waroon a am amu ko souvent léegi souvent dañuy dañuy préféré wax mbirum France nañu dimbali wala États-Unis nañu dimbali wala kële nañu dimbali laataa sax ñuy xalaat organisation c'est parce que ñoom seen bopp sax ñoom

donc ku ci mel ne Ousmane Sonko Abdoul Mbaye daanaka ñu bëri ñoom ñëpp daanaka ku nekk eh, ci ca page Facebook. Mhm. daal di ngay fésal sa sa maanaam eh, ni nga xamante ni noonu ngay noonee nga dundee mbir moomu xew ci Guinée. ñu bëri eh, jàpp ne mm, c'est un problème de troisième mandat tey trois conséquences troisième mandat moom moo indi li nga xamante ni moom moo di moo xew fële ca ci ca mais également mu mel que ni dañuy am ku ñuy lu ñuy gaarawaale tamit lu mhm. ñuy gaaral fii ci Sénégal di may gët. wala di dànkaafu ki nga xamante ni moom moo di le président Macky Sall ngir euh, li nga xamante ni jàpp na ni daf koy def muy troisième mandat. gis nga Mahfouz troisième mandat man dama koy comparer ak ak bëñ bu bëñ bu yàqu. Hmm. maanaam gis nga boo ko buddiwul tôt ou tard borom du nekk si jàmm tant que buddiwoo ko noonu la mel. Hmm. soit ñu ñu buddi ko ñu nekk si jàmm ba keroog bëñ ba di fa jógee maanaam ba keroog mandat jeex wala mi kii mais a doon mandat bu daal. parce que hmm. dafay du am gis nga moy li daal Alpha Condé dafa amoon crise légitimité ak légalité. légalité bi mooy dañoo jàpp ne troisième mandat bi dafa ko légitimité bi askan wi joxuñu ko fi teguñu ko fi mu nekk boo boolee ñaar problème dafay ci problème ngay dëkk loolu mooy troisième mandat tant que bëñ bi bu diw ñu ko sànni mhm. borom du nekk si jàmm si bopp bi métti lay dëkk si bëñ bi métti fu mu toll noonu noonu la mel tey jii ñi nga xamante ne tey jii xool dama la jox exemple si dëkk bi tamit boo jëloon Abdou Diouf jamonoy 2000 su fekkoon Abdou suuf ab su Abdou Diouf gañewaatoon ak mm. jeunesse bi ñu jënoon engagement nga yaakaar ne dina diriger ak na dana mel na mu daan diriger du yomb ci moom mm. Abdoulaye Wade su gañewaatoon en 2012 te pourtant moom moo moom moo moom moo demal nekkat candidature ba déposé mm. conseil constitutionnel validé ko imagine toi Abdoulaye Wade gagné Macky Sall en 2012 naka lay demee du doon si jàmm fak chaque fois ñi ngi ci marche chaque fois ñi ngi ci tal bi au moins may nañu cinq ans wala trois ans ni ñu kat nañ toog am beneen espoir mhm. ni ñu yaakaar ne coppite dina am mhm. loolu moo am solo xam nga loolu moo tax changement am solo mhm. tey jii même boo nekkee directeur quelque part def cinq ans nga am meilleur résultat yi bu keneen ñëwee ñeneen dañuy souffler tuuti parce que buntu bi fi nga daan tëj nga daal di buntu wala nga peinturaat kër gi pot de fleur wet gi lañ jël pot de fleur ko tuuti au moins di nga indi sa benn touche boo xamante ñii dañ koy namm dañ léegi loolu moo tax parfois il ne faut jamais dire jamais da dégg ñu taxaw naan non ñun ay militaires yi am suñu militaire dañ leen former ci école ay intellectuel lañ ay lii lañ ay lëli lañ gis nga àddina daal lépp loo lépp loo xamante ne musoo ko munoo ko ex musoo ko expérimenté mm. xamoo ko da nga koy moytu di ko daw gis nañ ne troisième mandat ab jaan la jaan la boo xam ne day màtte fu mu jaar ay musiba lay indi fu mu jaar lu mu dee dee ay bakkan dinañ rot mm-hmm. même su fekkente ne sax élection bi après dina am ñoo xam ne dañ dañ ciy ñàkk seen bakkan mm-hmm. mais loolu moo loolu moo waral nit ñi war ko éviter et malheureusement nag euh, je pense que ni ñenn ñi duñ ci bàyyi xel mais ak li xew nii Guinée nii. Mhm. yaakaar naa ne dina yee dina yee nguur yu bëri ñoo xam ne tey jii. lépp mun naa am ci biir lépp mun naa am parce que Alpha ko ne woon dimanche bi nga xëyee ndékki jël jàpp sa ñàmbur sol sa jiin ak semis di relax midi <laughs> jàpp sa ñàmbur midi ñu dugale si oto di la pamti pamte wax semis bi jaar nii nga def tànku neen ci koo xamante Mm. samedi si minuit. waaw dimanche si dimanche si minuit dimanche si minuit kenn du xam fooy nekk mu ne la da wax loo neex. <laughs> loolu mooy mbir yàlla. Mm. moo tax ñu war a gëm yàlla xam ne nguur yàlla moo koy joxe. Mm-hmm. moo koy jox ku ko neex moo koy bif ku ko neex tamit. Mm-hmm. kon loolu nag je pense que war nañ cee bàyyi xel ñoom ñëpp dafa am benn dund bu am après après présidence dafa am mais pourquoi ñu bëgg jël seen laaf yamale ko ci yamale ko ci présidence kese comme si soo seen dund. amul benn problème. mais tey mais tey eh, eh, bëgg naa ñu wax ci ci géopolitiquement parlant ci euh, li nga xamante ni moom moo di Sénégal tey fi mu fi mu ne. Eh, ak réew yi nga xam si ñoo ko wër hmm. donc daanaka réew yi ko wër yëpp ku nekk dund nga coup d'état muy Mauritanie muy Guinée Conakry muy Gambie muy muy Mali donc mu nekk pays yoo xam si daanaka ci sous région bi la ñu nekk mais ñoom ñëpp eh, am nañu tey dund nañ jafe-jafe yooyu jafe-jafe coup d'état tey ñun ban particularité wala tey lan moo ñu may chance ñun ba nga xamante ni ñun loolu mun ñu ko maanaam loolu mën moytu nañ ko muy coup d'état mosuñu ko mosuñu ko dund Sénégal te pays ñu yëpp daanaka eh, yëpp dund nañ ko bokk na ci début ba bokk na ci début ba ñële bi ñuy am ay nguur bi ay Sékou di démarrer fii ñeneen président di démarrer à gauche à droite ñi ñii di jël ku nekk di dem vers Daouda Diawara Gambie mhm. ku nekk di jël di dem mais ñun dafa am yàlla dafa ñoo joxoon Léopold Sédar Senghor mu gëm état gëm nation loolu loolu c' est une chance gëm état gëm nation mhm. y avait Senghor ak Mamadou Dia bu ñu wax tamit tuddoon nañ fi événement 62 mhm. ñaa ngi koy fàttaliku décembre ba tey même si su tentative de coup d' état la ñu xam nañ ne demeewul woon noonu beneen mbir la waaw dafa amoon benn bicéphalie à la tête de l' ñoom ñaar Senghor ak Mamadou Dia waaw il fallait ñu américaine président conseil ak président de la république mhm. mu gisoon ne Dia dem na ba am doole boo xam ne presque il fallait que nga nga pousse ko continuer say mbir après gis nañ li mu jur incident yooyu ñu am moom lañ gis benn tache noire boo xamante moom lañ am si suñu histoire politique fii ci Sénégal mm. bokkul ak dara ñi nga xamante ne dañoo def nguur coup d'état ray ki fa nekkoon wala genre yooyu mais chance bi ñu am mooy bi Senghor ñu may ñu am benn nation mm-hmm. commun de vivre en commun mu def ko si def def ko ci askan wi ñu góorgóorlu ci euh, mu am tamit leneen lu mu fi mu am benn particularité bu yeneen dëkk yi amul mooy ay chef religieux yoo xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo yoroon dëkk bi xam nga bi mu ñëwee bu fekkoonte tey ji dañoo am bërit rek moo tax parfois am na benn euh, benn historien bu ne Sénégal dafa am chance mu am Senghor mu démarré nekk chrétien mm-hmm. bokk na tey ji dialogue islamo chrétien bi li ko dëgëral loolu noonu ñu démarré mm-hmm. parce que boo ñëwee yow tey ji boo démarré un chrétien boo xam chrétien bu di bu mm-hmm. dirigé pendant vingt ans ay ay réew boo xam ne si ni quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans loolu tamit euh, Euh, yombul. yombul et yow boo démarré bu ñu la yóbbuwoon ngay diriger dëkk boo xam ne ñëpp ay chrétien lañ boo moytuwul sax di jox cër gëdd chrétien yooyu sax hmm. doo ko jox euh, musulman yi nga nekkal. Uh-huh. pourquoi parce que da ragal xalaat lépp loo def rek ñu ne bokkul ak hmm. ñu ne peut ne et puis murit la wala hmm. état tijaan la wala état ñaseen la wala état xaadir la wala état nangam la mais loolu mu am noonu cër bi mu leen jox associé ci état bi indil ñu loo benn dundin boo xam ne presque ñoom décision yu bëri daf leen doon concerté mm-hmm. et puis ñoom ñu amoon ay taalibe yoo xam ne def leen ñu def bàyyi leen ñu bàyyi léegi loolu nag mënoon appuyer fexe ba am kilifa diine ñu koy jàppale si liggéey moo yombaloon mbir mi jàppale ko jàppale ko mm. jàppale ko loolu loolu loolu nga ni dem doon maa maa maa ngi doon dégg Serigne Cheikh mm-hmm. Mm-hmm. ba Serigne Abdou ma ne ko boot ko soo ko bootul léegi ñu ne Tidiane la wala mu fi ñu ko askanale mm-hmm. te su boobaa dëkk bi mën na dugg feneen xam nga kon chaque fois ñoom ñoom chef religieux dañoo comprendre loolu tamit enjeu bi amoon ci li nga xamante ne bu ñu jàppalee kii kii kilifa diine gi mhm. avantage yu dëkk bi lay doon parce que mhm. suñ ko bàyyee noonu rek mu dem du baax

tey jii dëkk yi dugg kay daal di dundaat di dundaat c'est parce que dañoo ñam drogue bi mm, benn généraux moo koy ñam waaw doo bàyyi yow léegi boo ñamee keneen ñeneen diw diñu ñëwaat bëgg mm-hmm. ñam ñam yooyu nag mooy dem ba finalement ni ñuy renversé di mu doon benn xamante ne mm-hmm. bu ngeen toogee président bi ni mm-hmm. euh, ñu ñu dëgër lañu ñu am dëgër laay parce que bu du woon loolu 1962 Sénégal mënoon a dund coup d'état mënoon na ko dund parce que mënoon nañu fëkk dafay commencé woon di am ci diggante ñoom ñaar mais defuñu ko mi mi mi côté boo xamante ne côté sociologique la mooy société bi religieux joué nañ ci mm-hmm. beneen côté bi tamit côté côté côté armée bi la joué nañ ci parce que amul benn nguur goo xamante ne fii mun nga mun nga tenir tête sa armée mm-hmm. parce que ñoo la gën a jege ñoo la gën a miin arme ñoo la ëpp doole mm-hmm. buñ décidé def coup d'état dañ koy am wala tentative bi day dem ñoom ñoo si sécurité mi ngi noonu fu ne la jaaral fii foofu ngay jaar bu la jaar bu la bëggee fexeel aussi mënuloo si dara mi ngi noonu c'est très rare ngay gis euh, donc coup d'état di nga mucc ci te daanaka boo ci muccee tamit euh, bariwul daal bariwul nga ci mucc bariwul bariwul ñu ci mucc loo loolu moo tax exception lay amee rek exception lay nekk et puis Sénégal nekk benn dëkk boo xam ne beneen particularité bi mu am mooy dañoo fonk dialogue waxtaan dañoo fonk waxtaan. Mhm. loolu c'est très important li ñuy wax rek à ñu waxtaan moom ñaar yooyu noonu moom mooy def li nga xam ne mhm. mooy suñu force tey bu nga xam ne si nii tey euh, situation yi comme yi am ay Guinée ak ay mhm. Mauritanie gàmb yooyu yu mel noonu duñu duñu duñu duñu dal mhm. donc loolu il faut il faut ñu sante ko sante ko yàlla ñu préserver ko aussi bu mhm. baax a baax waaw voilà préserver ko te lu mhm. ñu si dimbali mooy nguur yi ñoom ñi jiite ñooñu si dimbali di bañ a tooñ parce que ku ñu tooñ parfois doo doo am bët pour tijji see bët pour xool tey ji mën nga tooñ ki maanaam askan yëpp taxaw xam ne kii warul def troisième mandat nga jaay leen doole forcé ne damay dem ñu bind ne nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs point point nit mënul def lu ëpp ñaari mandat yu toftaloo nga taxaw naan déet bii cinq loon bii sept la bi bokk ci woon bii lële bi ay jaru ko yow ba nga ko def yoo xam nga ne esprit bi la taxoon a jóg mooy man ñaar laay def mm. nga wax ko waxaat ko génn bitim réew wax ko fa waxaat ko fu ne nga wax ko fa nga dem ba mu jeex nga taxaw ne léegi man damay def mm-hmm. ñu éviter ko bi la mm-hmm. yooyu war nañ koy mën a moytu te xam ne dafa am beneen dund après nguur mm-hmm. politicien an tey ji ana ana ñu fi nekkoon nguur ñëpp ana ñi fi amoon doole ana Kadhafi ñoo xamante ne Afrique te lu ñu ani Mandela ñenn ñi am nañ ay dem boo xam ne rafet na ñeen seen dem kenn du ko waxati mm-hmm. kon bëri na pour man war nañ non rien n'est éternel loolu il faut ñu def ko seen bopp mm-hmm. soit nguur moom boo ci nekkee da def li nga war a def rek dem bàyyi dem rek soit nga dem ñu dugal la ci cercueil bi mm-hmm. wala soit nga dem toog sa kër te yaakaar naa ni Alpha Condé demee as gor nekk war ngaa moytu demee nu ni mel mhm. parce que bu dul dara sax bu dul dara dara dara alpha bu dee service rendre na ko bu dee benn fan sax rendre na ko Guinée mhm. même bu dee benn fan rendre na ko Guinée kon mérité wuloon sortie boobu mais lan moom fa yóbbee boppam mhm. parce que bu doon boo demee je pense que ku toll à 83 ans di xëccoo nguur di xëccoo nguur mënoon naa ñàkk mhm. bu waxantee dëgg mënoon naa ñàkk waroon naa mën dem noppalu ko ji heure bi nga koy dégg ci mbeddu Guinée waa mu dem Paris wala feneen fu ne tëdd fa jàpp mhm. ñàmburam ba pare nag te xam mais lu nekk mën na kaa nekk ci àddina bi. Ah, lu nekk mën na koo nekk ci àddina bi parce que 60 ans mi ngi euh, maanaam euh, lay am 60 ans mën na dem ci yenn yenn organisme mën na dem fu nekk euh, mën na dem fu nekk fu nekk mën na faa dem. Mhm. tey ji ONU bi ñuy wax sax mën na koo jiite. mën sax mën na koo jiite dara dara du la jomb sa àddina. Mhm. mais loolu tey ji est ce topp andi ñu lay buux di la buux naa laan demal def demal def parce lan parce jàpp nañ boo wàccee ñu torox jàpp nañ boo wàccee ñu amati ñu di la buux di la ba nga sotti par la petite mhm. après li nga liggéeyoon yëpp daal di màbb je pense que loolu lu bàyyi xel la ëllëg du anjureer waaye lu jar a la mhm. am na parcours boo xam ne fi ñu toll rafet na rafetaay goo xam ne ëpp naa xajama te yaakaar naa ne man il est conscient de cela mhm. et dina ci bàyyi xel dina am président Macky Sall Sénégal desalatu ko dara dara dara ak wax waxtuma laa borom bu gën a bi mu a rafete kon bu koy delloo na ko delloo ci anam bu mu gën a rafete kenn ñaanul yàlla li fi amoon 2012 yi fi am ñi ñàkk seen bakkan mm-hmm. góor gi di ko delloo xoola mm-hmm. Abdoulaye Wade rek mm-hmm. Abdoulaye Wade xeex 27 ans ñëpp période boo xamante mu ne woon jamais je ne marcherai sur des carats pour au palais phrase boobu di résonner ci bopp ñëpp ñii di def ay coup d'état gauche def ay ruruk mu nekk démocrate bu kenn dul werante mhm. mu ne du ma mës a jaar ci ay néew pour dem léegi ñu def élection sax moo gagné ñu dañ koo sàcc mu muñ ñu sa élection ñu jàpp tëj après ñu bàyyiwaat ko mu dem mm-hmm. doo dégg mukk wàdd ci yenn kii bien mm-hmm. mu nekk benn démocrate jot ci nguur gi liggéey liggéeyal Sénégal ñëpp gis doo liggéey bu am solo bi mu fi def mm-hmm. mu war a génn war a dem ñu ne ko déet góor gi des na kaay dolli dolli waatal na troisième maanaam gis ko yóbbee di dee di dee di ba ñu compté ay treize morts xaw ma nangam ñu mujjee dem élection Macky Sall mu dem toog xool niñ ko wàcc te imagine toi élection bu ci Wade bokkul woon. Mm-hmm. moo doon Sénégal président bu njëkk boo xam ne dafay génte du urne moo ko wàccee.

gisoo ci kenn bañ koy dugal ci oto bi di ko patam patamee moom kese la ñuy gis mm. <laughs> kon pour man nit ku nekk war boo wéetee war nga jàngataat sa bopp xam xam sa ëllëg nan la war a demee en tout cas war nañu jàng bu baax te nag euh, so jàng jàng fañ koy jàng sax soriwul ndax ñu wër yëpp gis mm-hmm. nañu nam fa nam fa lemee je pense que war nañu am xel wala suñu ñu njiit yi Macky Sall war na am xel bu baax a baax euh, bàyyi banaam bàyyi xel ci mm-hmm. loolu yi nga xamante ni tey mi ngi mi ñuy gete Eh, te soriwul dara réew yi nga mm. xamante ni moom moo ñu moom moo ñu wër donc euh, en tout cas Sénégal daal soxlawul loolu eh, te tamit jiwuñu ko loolu donc réew mi bi ñu ko koy jox dañ ko ko jox ci anam bu rafet mm-hmm. jox ko réew mu dara sikkut donc mu ñu koy delloo tamit nañu delloo réew moo xam ne si nii réew mun a cocc la wér péng mm-hmm. ñu mën ko ñu jox ko keneen koo xam ne si nii tey dina mën a dina ko mën a continuer mais pas bëgguñu ko ci maanaam ay jaxasoo ak ay ñoo xam dañ ci ñàkk seen bakkan ak mhm. yooyu donc voilà et puis suuf la si cere sax parce li mu fi def yëpp ma ne suuf si cere lay doon sax togg sa cere ñëpp añ ba suur nga war leen jox boisson ñu naan nga yor sa yet di leen dóor loolu lay nduru ma yore joxoo leen keppaar ñu toog serru nga nga nga di leen dóor ki ngay dóor day fàtte naa ko joxoon sax añ mm-hmm. danaan finalement li mu defoon yëpp yàq na ko mm-hmm. li mu fi def ci ay ci ay réalisation jarul ngay jarul ngay takk ay lunettes pour gis ko mm-hmm, en tout cas li mu fi def ci wàllum koom jarul ngay kii pour gis ko donc bu jéem buñ ko jéemee dugal ci genre dimension yi ba mu dugg ci ëllëg lu ci am rek day yàq li mu defoon lépp parce que duñu waxat loolu mais génn ba la ñuy wax dootuñu waxati lu mu réalisé lu jar a bàyyi xel la en tout cas mi ngi noonu Moustapha jaajëfal naa la bu baax a baax xanaa rek di la bàyyi nga daal di euh, def sa mot de la fin euh, ñu daal di tëj jotaay bi waa suma mot de la fin li ma koy defee rek mooy di euh, ñaax ñi nga xamante ne ñooy way politique yi rek. Mhm. c'est vrai que nag Sénégal du Guinée Sénégal du Mali Sénégal du Mauritanie waaye ñu bàyyi xel ne ab askan kenn mënul xeex ak moom. Mhm. loo am am am doole askan moo la ëpp doole. Mhm. et dafa am benn dund boo xam ne dafa am après nguur fii koo fi gis gis gis gis tamit président di nga dégg ancien président boo déggul ancien président di nga dégg défunt président maanaam président bi fi nekkoon. Euh, fala bu dëmam yàlla dina yàlla bés dina ñëw mu moom la mhm. kon loolu nag il faut ñu bàyyi ci xel nguur nguur yàlla rek a dul jeex mhm. boo fégalee demal sa yoon waaye di jéem ay mathématiques wala def say pexe yoo xam ne da ngay ci nguur gi mhm. parce que am nga intérêt bi parce que am nga lële je pense que yooyu Afrique war na koo mën a dépasser et dafa ñaawlu sax boo xoolee àddina bi mhm. yoo xam ne yu ñu waroon mën a moytu lu ñu war a mën a éviter la te loolu suñu njiitee rek ñoon ci mën a dimbali parce que ñoom ñooy xëccu def ay troisième mandat ay quatrième mandat mhm. euh, jaajëfal naa la bu baax a Euh, waxtaan boobu lañ fi doon amal day muy situation gine ak euh, li nga xamante ni xew na fa démb di ab coup d'état donc armée ba nag jël nañu réew ma euh, ki leen jiite moom mooy Mamadi Doumbouya donc Alpha Condé daal dinañ ko jële ca bopp réew moomee nga xamante ni at dong la fa def bi ñu ko falee ak léegi ci troisième mandat bi nga xamante ni juróon na coow lu bëree bëri ak manifestation yoo nga xamante ni Guinée Guinée Conakry daal dina koy dund donc mi ngi noonu dinañ jox dig daje rek ba suba incha allah ci beneen plateau jaa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 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax